émission bi ku ñuy wax Saliou Mbuub rakku Serigne Mbuub ak Moustapha Cissé ku ne yónnee ma un million kon lu fa des vingt million fa des nee naa leen téléthon ma bugaan may nañu ñaar doy na sëkk te lépp bugaan la bu du loon teleem nit ñi dañ ci jot may leen li ci des nag télé taxawoo ci des télé taxaw téléthon jeex na télé taxaw vingt deux millions du xaalis nañ taxaw ñun ñëpp nañ taxaw li ci dina demaat télé day soof nee naa leen ku ma gisati télé résultat élection yi laay joxe bu soobee laaw ku ma gisati télé rek cent millions yi sotti na mu ngi nii te dama koy teg duma ko wax ci làmmiñ duma joxe ay chiffres jamais dama koy teg bu yeggee noonu laay def te dana yegg incha allah sikk nekku ci loolu dana yegg sikk nekku ci loolu joxe woon ñëpp xam ne cent millions yi benn waaye ne yow vingt millions bëri na ma ne ko yow dofoo cent bu ca quatre-vingt génnee lu fay vingt millions day xaalis du xaalis mais ma ne ko nag tey am na chance oustaz yu def lii ci àdduna bi nga yow nga naan Sénégal àdduna bi yëpp ñun bëggante wuñ di bëggante <laughs> bii baax na parce que sag la ci diini li tax ma gën ci yéemu Serigne Pape Malick dañu nuyoo ci sunu ziar bi ni mu foo toll ci seen téléthon bi maa ngi koy suur ma ne ko soixante-dix-huit millions mu ne ah léegi mu yegg li ngay yegg na aw leen góor jàmbaar ngeen nag waaw nekk yëpp kilifa yaa ngi koy suivre toog naa fii ñu ne wéy dafa am kilifa ku jox may la joxu fi dërëm te télé ba laa ko wax joxe ma wax ku joxul du ko wax te demee ci quatre-vingt lu la dese wàqi rek balaa mardi laa am réunion ak ñoom Saalin Sall ku jàmbaar la ku baax la man biñ koy sumb dama ne leen may leen ma ba oustaz màkka laa ko waxtaan ceeg moom mu ne ma incha allah takk naa samay bagaas Aliou dem na cérémonie am na cérémonie bu mu daan teew maak moom borom cérémonie ba mere ma mere ma génne ma ci bëgg Aliou def ko Aliou wax Assane ne ko su fekk bu Iran yegg rek woo bu yegg si wu ne jarul ngeen may woo borom conférence boo ko mu ne bu Iran yegg see nga woo ma maa ngi moom ci daan toog du Iran fa dégg mukk Iran duñ ko teel a ndab mukk ma di ci sukkati ja jaaru fa ñu teg ca ñaari semaine daje ci conférence ma ne ko yëg naa li nga def mu ne looloo jaadu fan yële benn njabootam am lu mu def ba am bésam wax ma ko man ma ne ko déedéet lu Alioune Sall taxul loolu la yàlla dogalagum suñu digg dogalagum yéen ñiy déglu déglu leen baax li ma olof laa loolu la yàlla dogalagum suñu diggante mën na dogal ëllëg du ñu laale baa ñuy reyante loolu yëpp ci loxo yàlla bi mais lii fi nekkandi lii moo fi nekkandi ku soxla boo amee quatre-vingts lay sant yàlla diggante samedi ak samedi dama lijjanti ko fi yow loolu de la yàlla def mais nag ci 012 42 42 77 012 42 42 mooy dafa wari rek ni Ibrahima Badiane jeex na bu wari Ibrahima Badiane orange mu ne it ko ciy def bu feesee defal wari rek waaw 77 012.